شاعبا بال لي إبريس فحاب وعددا وللحبيب كدم ألفا فلا تهم وصليا يا أبدا عن محمد مقتاد قدم بال لإدريس حسم حفيا يا عددا xale yu ngéew bi ponk la ngi ñëw walil abi bi moom kaddu waxuma kaddun mi atan waxuma kaddun maratan kaddun alfan laa wax tamis jàngu wala gay naa daana wax ne bu ma nekkul di nelaw nekkuma ci biir wanag nekkuma ak sama soxna di waxtaan ak jibril daa iman ay sutu sax ba muy rus respect naan li ma metti rek am ak yow doom te ci ngëne la ko takk Aïsa doomi Sidi Abi Bakri juróom-ñaari at la am rek Ababacar xonce ko may ko nabi ne ko dinaa la ko dencal dencal ko ko deux ans deux bu fekkee sept neuf ans ñu jébbal ko ku gàtt fan la ci séyam ak Moustapha yàgguñu déwéni Medina jëlañ ko ko jébbal onzième anniversaire na bi nelaw bàyyi ko muy jég bu ndaw rafet lool toog na fi ba am soixante trois ans toog la góor ci lal daanu li Idrissa warfa'naa makaanan aliyyaa ñeenti yoon rek la maam Idrissa gis Jibril quatre fois Iisaa mi fi mujj nag nabi topp ci moom bis qaala Iisaa ibnu Maryama yaa banii Israa'iila innii rasuulullaahi ilaykum musaddiqan limaa bayna yadayya mina at-tawraati wa mubashiran bi rasuulin ya'tii min ba'dii ismuhu Ahmad falammaa jaa'ahum bil-bayyinaati qaaluu haazaa sihrun mubiin wa man azlamu mimman iftara 'alaa Allaahi al-kadhiba wa yud'aa ilaa al-islaam wa laa yudhi'u qawma zaalimiin yuriiduuna liyutfi'uu nuura Allaahi bi-afwaahihim wa laa yutimuuna nuurahu karaa wa laakin ar-rasuulu bil-hudaa wa diinil haqqi liyunzira 'alaa diini kullihi wa law yaa ayyuhaa allaziina aamanuu hal adullukum 'alaa tijaratin tunjiikum min 'azaabin 'aliim tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiilillaahi bi-amwaalikum wa anfusikum zaalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamuun yaghfir lakum dhunuubakum wa yadkhilkum جنات تجري من تحتها النار ومساكن طيبة في الجنة عدن ذلك وسعة أخرى طيبة نصر من الله وفضل قريب يا أيها الذين آمنوا وهو كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال أواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا سائرين بما فيك فوفل ساروا يوم خام يقول سبحان الله من حافيا حافا حيفيا حيفي حافيا waaw waaw insee fukki yoon la gis Jibril na dëkk gàtt fan xam nga ñaata at la doxal yonent bi vingt trois ans soixante trois ans la dund quarante et huit la mu ngi ràngoo garanti yi après quarante doxal ko vingt trois ans léegi alaaj Maalik wax la ko bul woy nag bul woy xayal ma ma faf ma faf ko ñaxetu ma sara yaati lahu jibril ad yaji min asinina bi ayatin min alxakami hukami xikami Maodo nee na nabi gis na jibril ñaar fukki junne yoon ak ñeent moom boo boolee yëfi gaa yëpp sax duñ ko mët asak si ñoom ñëpp yàbbu na ki nuunu na ki taa boo doon boolee ba mu daj du àgg sax ci di topp ci chiffre bi rakk chiffre bi kaddu alfin si daaj maa yi ne kaddun ñaar fukki yoon ak ñeent na tekk nag ñu defee ne ñaar fukki yoon ak ñeent day wax mi atan ciy téeméer wala da koy wax maratan ci yoon mu ne déedéet alfan laa wax ne ciy junne ñaar fukki junne yoon ak ñeent jibril gise na ko nabi te nabi 23 ans la doxal maasala mosula dañ jibrilu jibril yaati di indi loxo ñeel Moustapha add yi ji chiffre ji ji ci at yaa dix yaa gële dix jiim trois vingt trois kay di ko indil minal ayaat yi yéen bu mu toog na taxaw sa bañ a wax rek ku mu taxaw ci wetam dina xam li mu wax bul toog de jógal am jox ko ñu jógal rek di tolloo toog di tolloog ñoom te bañ di wax parce que ko taxaw ci wetam rek tàkk na mbaar dina xam li tax maa mu jubu xiyaam ak amaanaha waaw mu mujj gi de toog maasaale mosula deñ kan jibrilu ci lan yaati kan loo jóge fan min al ayaati oo xam ne min al ikami min al ikami bil ayaati gis nga dafa am lu ñuy wax badi xam nga badi xam nga fàttee ñaata araf la gis nga secret bi ci lixlaas cinq quinze quarante sept cinq bindal quinze bindal quarante sept calcule ko soixante six mooy secret lixlaas dafa sekk bu réy ci abdu kilifa bi fii ñu dàkkaloon si xam tijaan lu ne mën na fi génn soixante-six xam nga mooy lan mooy laaw mooy laaw moom la si daaj maa ngi dund soixante-six ans allahu la moo du dund minallaahi fillaahi lillaahi atawasala indallaahi mu yóbbaale laaw cinq mooy ayay laay quinze mooy baat quarante sept mooy araf vingt trois baat la fatiha naa si xam nga ñaata la vingt trois saar bi jëkk wàcc 23 la saar bi mujjee wàcc 23 la ndeke dafa wadi ñu signalé na bi ne ko 23 cent ngay doxal boo koy bati allahu akbar masala mosula dañ yaati di wuy si di indi loxo ñeel nabi addasi ji diirub ya ji ñaar fukki at ak ñett min sinina ci at oxumala min al asurin mu di ko indil ayaati min al ekmi du dëgg fatiha alquran li tax nga xam ne yàlla fonk nit ñi alquran mu ngi ko commencé ci turam bisimi li ci tegu waaw kay waxul bisimi muhammad de bisimi mooy firi ci turi ci turi ku tuddallaahi ci la téere bi wàcc xam nga lu mu mujjee wax naashi mooy firi nit minal jinnati waaw koñ boppam li jëkk mujj nit tëj téere bi bisi mi ku ci tegu ñu ne jënti nag xalaas mu jeex tak benn bayte bii xale yi jànq yi téere bii na ngeen ko jënd yéen ñëpp ku ci mënula liir it bu sa doom wàccee ba cëg di la ko liiral mooy li Ibader waxoon ci Sidi Hadji Malick ca conférence daaw ba sëñ bi ne ko fokk nañ ko def téere ñu def ko téere indiwaale ko fii booba ba tey mu xat ba jotuñu ko mën a jotal nit ñi téere yaa ngi fi bari lool li muy jar lu yomb la lool lu ñuy jaayee soleil fanweer ñaata weer nga koy jëriñoo benn bés képp fanweer xaat cem cem soleil soleil daal moo gaaw ne sunu benn bëccëg rek kii téere la boo xam ne say doom sax mën nañ cee doonante Iba Der bàyyi lu ci Sidi Hadj Malick dara ndokk yàlla bi ngeen jàngee tubaab traduire nañ ko en français dooleel leen ko cadeau yu at mi ngeen doole ko xame seen sëriñ doole ko bëgg dama sàggan rek waaye bàyyi abdara wele di doomi ma yoro wele yor xabu Sidi Hadj Malick oo na ma ne ma Ibou Sakho doom kaay ni nga xamee yónnent bi nga xamee ko si sëriñ bi Alaaji Malick ndax bu ëllëgee nit ñi mën koo xam sa bàyyi man la la sédd maag moog bàyyi moog bàyyi Mansour Mbay sama papa dafa leen noonu ne mag laa may naa leen Ibou Sakho moo bëgg nga ñëw rek Sakho ñaan permis am fi fukki fan ma wax la Alaaji Malick nga bind ko ba xam ko ni nga ni mu la xamale Moustapha ma xamale la noonu Maodo moom xam ko rek doy na doy na soyo tas tey ëllëg téere yaa ngi ñaari téeméer lañ koy weccee koo bu kenn ñibbi te amul la ci kenn nag ku ci dend ak sa moroom na la abal boo demee nga delloo ko ku ma seen ngay ñibbi nag te yoru la ci dinaa la porte plainte bu ngeen demee jox ah ay sa dara dugg gaaw ci jigéen ñu jël dafay li ci téere yi gaaw kale jox ko ñaar kale nga jox ko ñett kan ci maanaam bii waa ji daal Iba Der bii yal na yàlla yokk xam-xam ak boroom xam-xam yépp li mu wax ci góor gi kenn su ko gis mooy juróom-benneel yi sunu semaine yi daaw bi ci lañ ko defe rek xale yu góor góor lañ ci photo si daaj maa leen ci biir nag photo bi rek waaw photo baa ngi ci biir photo bi rek nag moom doy na jinn photo si daaj Malik daal moom ëpp na sax junne maa ngi laa bëgg fii woy woy yu jafe ci xilaas sax yoo xam da nga war a dem àllarba ba tàyyi door ko digg ruya kitaabu kasa alqaau min malakin muratibul waxi la tarte place mi noo koy firi waaw daf mu ne ñu ma ñu maaral nii kana xarit rek ويكتب كفاها من ملك مراتب الوحي لا ترتب كان القاء من ملك مراتب الوحي لا ترتب ولا تيمين
من ملاك مراتب الوحي لا ترتب ولا تهي من ملاك مراتب الوحي لا ترتب ولا تهي وارضى لي عن يا إلهي وجزيهم أبدا عما محمدنا المختار بالقدم ويا الخطاب
كفى يقع من ملك مراتب الوحي لا ترتب ولا تعين دقرك سيدي حاج مالك ها روي الكتاب مبتدا من كم ورد اخر وحي وهي الكتاب جديد جواب defal nag aloo ko tax a jafe dafa fab xabar mubtadi ji sànni ca kanam fab xabar ji teg ci daal ni ci ginnaaw fab xabar ji teg ci kanam nga ne maratibul wax yi dëgëre yi wax yi ñu ne waaw si nga ne salaasatun muy badalu mu fasili ni mu jëmmi mu asab ko premièrement ruya xitaab ilqaaw min malakin léegi saal li gën a gaaw daal ci njaay mi daayira bu ne jaay leen ñaar fukki téere daayira jigéen ñi ku ne jël ko taañ jox leen waaw ajaaram sàmb la jël dix dix vingt waaw dix waaw kat jël dix Fat Diop Diouf Seydou Boussard Seynabou Sarr dix daayira président daayira ku ne na jël quoi ñu ngi dem di téere yi quoi ñu ngi téere yi am na benn xasida bu baax xal- xale jigéen yi bu neex bu sida bi bakër si najul xaaj maali ko waari si sirrihi waaw li xalifatihi def ci Cheikh Ahmed Tidiane man kaa way yi ñu way Cheikh Tidiane yi yëpp yëpp yëpp boobu nag daf ci daf ko tas dafa tas taalibe yi ni ñuy mel taalibe Cheikh Tidiane boo dajeeg moom nii lay mel naa laa mel boo jàngee xasida bi rek xool tant bi xam ne euh, sida bi bakirin kaa moo rëy ab gis-gis Maodo waaye doom sa ñaan gi yàlla na la ko yàlla delloo waay yàlla nañ ko bokk man na jaaxle naa dafa am nit ku baax kuy romb sama kër yor oto oto yi ye- oto yi yebbi seen bopp xam nga mu tudd benn waaw ñoom ñooy yebbi seen bopp xamal yebbee gën a yomb a yeb alxuraan wax na la ko wa innaka la tulqa min ladun waaw te luqaa mooy luñ la ñuux luñ la luñ la roof la ànd ak rodd rodd noonu la alquran di dugg waaye nag wala xad yasarna alquran li dikra fa amin mu dakkirin bu dul woon loolu kenn du ko yàpp waaw fan bu dul woon ak bu dul woon ak jàppandal gi yàlla def ci yàbb gi kenn du ko mën a yàpp ndax dugg gee metti oto boobu yebbi boppam dafa am waaju koy yeb di romb sama kër ñu ñëpp xam nañ ko su agsee rek taxaw su taxawee nag leen a tekk ab diir ñaari nag bu ko defee day seet ci poosam lu mu war a wàccaale su ko defee mu ni cëpp wàcc dindi xaalis jox ma dina ma xool nag kaar ba ma tiit yoon yi sax damay bëgg a wut fu ma làpp ngir mbëggeel gu ëpp rek man de waa jooju jaaxal na ma laajal xale yi rek jàkk rek ba ba ba mel ni rongo yuy tuur mu ne ma yàlla nga am téeméer at ak fanweer nga tëb jox ko fii man daal loolu di ma jaaxale waa jooju fay la sant mu ngi ma jox sax yóbbante bu jëm ci jaw yi Sidi Sidi Abubakar bi waaw jox na ma xaalis ne naa ko joxeel ci jumaa yi Mawlaana Sidi Abubakar xalifa ca Tiwaawoon xaalis baa ngeeg man ma denc ko fu ñoŋ dafa naqaree denc nag moom xaalis dama bëggul nag xam lim bi joxe lim ba dama bëgg a joxe jëmm ji ma jox waaw leeg leeg kaar ma sant daraama bépp xam nga di seet say poste dencu la fa loolu fi la mbànk sa yem balaa ngaa banque pire di seet sa poste mu wóor ne daal dafa lu ca dara waaye boo ci juuxee damay firi tël moo ci ko fi mu ngeeg man si lii keroog daje naag
Maodo waaye yàlla te yëf ya xat waa joojule yaag moom Maodo ak jullit yëpp yàlla na leen yàlla defal fan woowu di jaay si di la walina wal afri ngeen ngeen woyal ma ma coupé ndi fii ba jàng sëñ Babacar 31 23 ñu ngi jëm Thiès 31 fii la ñu seet ñu seet ñu jëm ko ñu jëm ko ca jokk
قطب يا قوس يا مولى قطب الوجود الذي أبدى لله يسور بي وآدم بين الماء والدين عبدي وآدم بين الماء والدين عبدي وآدم بين الماء والدين من غرب الوجود نبي أبدا لولو يجانا نغبو آدم بين الماء والدين ربي وآدم بين الماء والدين ربي وآدم بين الماء خليفة الأكبر من أهل بالفعل إلى النبي أبريل توقف علي إليها كاذبين ربي وعلم بين الماء والدين ربي وعلم بين الماء يبدي لنسارب هذا الغنم لسعب سبابتي بل نار الجهاد على شاي تكريم ربي وعلم بين الماء والتين ربي وآدم بين الماء والتين أجلك أن فرحي يا مرقوب ما فاني في أول قدر منعتينا من بعد تكوين ربي وآدم بين الماء والدين ربي وآدم بين الماء والدين ذكرك مرنا والحب كما يلالى أبلا فلما سرتي بلد ليس مالينا بل لنا ويسدين ربي وآدم بين الماء والتين ربي وآدم بين الماء خليفة يا إدم الليل يا دار الحب بلا ذات ما أنا من لكن يباري أرباب ما يدين ربي وآدم بين الماء والتين ربي وآدم بين الماء والتين عندما جاءك مثل صبر ما كاذب البراري شغفي دم لله كم قرب الأرباب تزين ربي وآدم بين الماء والتين ربي وآدم بين الماء والتين يا آدم يا سالي يا آدم جلاقي مصدريها على أهالي فاطم تلاهين ربي وآدم بين الماء والتين ربي وآدم بين الماء والتين وتأمل من نطق أبدات يا نائمين نصيحة ولقد سحبت بعد إلهي وتخمين ربي وآدم بين الماء والتين ربي وآدم بين الماء والتين نسارب إلى الموت يا مؤمن ربي وآدم بين الماء والتين
ادع إلى حيث من ترعى